jërë ngeen jëf parti pastef ba woon tey la gën a ci bokk ci élection présidentielle yu yi yëral xët mu njëkk si du quotidien parti bu Ousmane Sonko bi ñu tas ji pastef ka ne woon vice président ba di docteur Diallo Diop moo fa yëkkati ay kàddu di fa xam le ne ak ou sans Ousmane Sonko parti pastef dina am ab candidat buy défendre projet bu parti bi ci présidentielle yi yi ca rajo Sud ci émission objection journal Sud nee nañu fa la ko waxe lam mu njëkk Diallo Diop wax ba jànge ci ne waa ñoo ngi wax waxi plan B journal Tribune mel ne ku naan ko ñooyee ndax mbir yi dañoo gën a teng ci diggante Macky ak Ousmane Sonko ndax Ousmane fa mu mat fa la mat yamale bàyyi ak dee te Macky Sall mi mu ko séqal ba léegi neew ko deel ñu julloole gisuñu benn jéego bu mu teg buy wane ne bëgg na décrispation am li fi amoon fan yi mu di téeméeri personnalité ak ñeen fukk ak ñaar yu bindoon ab pétition ba signé ko libération bu Ousmane Sonko bokkoon ca lañ doon sàkk l'observateur nee nañu am na ñeneen ñu bindaatu pétition ba signé ko tontu leen ca bu wis leen les ak ñaari téeméer ak fukk lañu nañ 1220 personnalités ñu ràññee ci juróom-ñetti fukki universitaire ci ñoom juróomi recteur nga ci ràññee nañu ci ñaari téeméeri acteur politique ak ñetti téeméeri parlementaire yu manqué juróom-ñett ñoo def seenu pétition signé ko tegaat ñoom professeur Serigne Diop ak ñoom Felwine Sarr seen place ci pétition ba journal bi nee nañu jéebaa nañu ci ak par parloo gu ñu ne dañu ko seetlu ca pétition bu njëkk ba lii quotidien nañu yemu ca ndax ca seen pétition dem nañu ca bay laaj ñi def pétition bu njëkk ba fan lañu newoon bi réew mi di tàkk ka jaxasaw ka jax-jax ci weeru juin gi ñu génn bu gàcce doon

candidat bu Benno Bokk Yaakaar kii sëriñ Abdoulaye Mountakha Niass yaakaar ne mooy candidat bi gën ci Benno Bokk Yaakaar moom sëriñ bi mi ngi koy wax ci Vox Populi candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle 2024 yi boroom mouvement Madan sëtu Cheikh bi di Cheikh Abdoulaye Mountakha Niass nee président conseil économique social environnemental di Abdoulaye Daouda Diallo la war doon fu mu sukkandikoo mi ngi koy wax ci waxtaan wi mu def ak journal

ci état bi ñu libéré fukki doomi Fass Boy ak juróomi ñu jàpp ku ñu jàpp ca Matam ba war la àtte yàqu nga ndax suur soi mi ngi ñuy xibaar ne tribunal bu Matam na la ci dégg doy ndax dara amu fa dara doxu fa bu weesoo promiscuité ba fa am bâtiment ba tribunal ba nekk yàqu na juge d'instruction amu fa ab greffier waxi noppi ñu noppi ci dal ci record yéen kay waxtaane final coupe du Sénégal bi ñu doon football démb ci dimanche ji ba ca jëm ñaajo bi moo dóor stade de la jeunesse source waa ne nañu mooy Iliman Lam terrain football synthétique bu bés tàq la defar ci liberté 6 may ko jeunes ya fa nekk keroog samedi ci lañ ko doon inauguré le mandat di ko dëggal ci xëta mu njëkk ba bind ne opérateur économique bii di Iliman Lam soppi na xar kanamu liberté 6 ak terrain football synthétique bu mu defar may ko waa liberté 6 l'observateur bind ne Iliman Lam dugal na dugal na bit bu rëy xibaar bu rëy mi ngi ci libération ubbil yéenekaay bi Seynabou Faye la wujjam soode moom ak doomam ju amagul at am ndox la tàngal ba mu tàng jër mu sotti leen ko mbiri wujje ak mbiri vengeance moo fa jaar ñaareel bi soode aaw bi ak doomam journal bi nee nañu ba ko gendarmerie jàppee ba yóbbu ko lim leen wax mooy man ak sama jëkkër dañuy am ay problème te aaw bi moo koy waral ñii war ay moto l'observateur ne nañu ndekete du ñëpp ñooy ay livreur am nay boroomi cag-cag yoo xam ne ay détective privé lañu benn femme di wax ci l'observateur ne bi mu soupçonné na jëkkëram da koy trompé benn borom jakarta la fay ko jakarta bi di ko toppal jëkkëram ndaw absenté sama jëkkër dafay indi gelam ci sama kër. DSL.